ñu ànd ak yéen ci euh, Buzz SN TV ndax bu ñu dégloo Ousmane Sonko ba noppi dossier boobee dañ koy classé sans suite wala dañu koy euh, toppaat ndax bu ñu xoolee avocat yi Ousmane Sonko yi ñu ngi sàkku à ce que euh, ñu daal di amalaat yeneen audition maanaam ci ab requête boo xam ne rek daal di nañu koy amal bokk na ci MC Niass mi nga xam ne rek jot na fee daal di bokk ci coowal aji Sarr lii ak audio ya génn tam. kile di euh, docteur Moussa Sow moom itam gis nañu ne euh, ñi ngi sàkku à ce maître Moussa Sow du moins ñi ngi sàkku à ñu daal di koy euh, déglu ak ki nga xam ne rek moom moo di médecin bo waaye mu mel ni boobule requête kenn yeeyegu ci yàbbi dana amam déet looloo rek fi ne nii lu ñuy xaarandi ñu gis ne tey jii ca tribunal bu Ndakaaru ki nga xam ne rek moom moo di euh, maitre El Hadj Diouf euh, mu ngi fa woon euh, moom mi nga xam ne moom moo nekkoon avocat bu Adji Sarr te ñu bëree bëri jàpp ne bi mu demee ba ci biir dafa daal di désister génnaat ci ndànk ci lu mu waxul sénégalais yi gis nañu maitre El Hadj Diouf ndak muy jubilé ca buntu tribunal ba tàllal loxo. Ah, di yëkkati mel ni ku nekk ci ab ah, convoi wala mu nekk ci ab meeting ah, ci noonu rek lañ ko gis mu ne nag dafay daal di amal ab conférence de presse ngir am lu mu war a daal di xamal sénégalais yi ñu desandi. Euh, ci yàlla euh, 3 mars tey mu doon bés boo xam ne rek daal dinay euh, tagga témbel ñenn ci sénégalais yi ngir ñu xëy dem liggéey ci ñàkk daal di wóolu ana lan mooy xew fileeg ngoon ndax mbir ma atu mooma mun na daal di dégénéré tax rek waa Dakar dem dikk ñoom itam daal di éliminer yenn ci seen ay ligne yoo xam ne jàpp nañu ne euh, ñoom daka Dem Dikk tey jii bu ñu dawee euh, boo mbir mi euh, amee ak coppite rek mën nañoo leen daal di songu ndax à chaque fois dañuy gis ne ñoom ci boppam rek dañuy nekk ay cible ñenn ci ndaw ñi nga xam ne dañuy taal seen ay oto wala ñu koy yàqate bu ñu sukkandikoo ci les échos ba tey